Yeah. arbitre bi sifle na Bib Diop Boy Diola Bib Diop mbokk yi moom la ñu lool Boy Diola moo ne woon ginnaaw Bib eh, <laughs> eh Bib Diop Bib Diop mi xanaa dafa mer laay leela laa Boy Diola doon na ko guubu dal Bib Diop Boy Diola Boy Diola moo nge moo ngemul xonk li Bib Diop moo ñuul moo ñuul Bib Diop Bib Diop Boy Diola Bib Diop Boy Bib Diop a ngi dox ci kawam Bib Diop Boy Diola eh, Boy Diaw Bib Diop dafa mel da ko bëgg a Bib Diop da ko bëgg a kor na ko Bib Diop kor na ko Bib Diop Boy Bib Diop Bib Diop añ na ko Bib Diop Bib Diop da ko dafa sori Boy Diola Bib Diop Bib Diop Boy Diola Bib Diop Boy ko bëgg a zongale da oh, Bib Diop daan na Boy Diola Bib Diop Bib Diop xoolal man booloo ma xool ma kaw ma ngay dem Bib Diop ma ngay dem fu mu jëm Bib daan na Boy Diola Bib Diop yenn na ba ca doo ci suuf da koo zongale. soo doon gën a ngi woon bu yow la naa la bu baax waaw dama ko waxoon damay samp ak yow jaaga xeex ak yow dëgg xeex naa man dóor na ma man génn laa doomu yëmbal laa damay encaissé mais damay daan ñu topp sama ginnaaw dafa bëri Modou Anta mooy sama quatrième combat quatrième victoire nee naa la xale laa dama nekk si yoon fii am fi trois victoire Iba Mar benn muy quatre maa ngi sant yàlla nag di sant ñëpp ñëpp ñu may ñaanal. moo tax jàppee mu jeex. Mor Anta damaa mën a bëre. billaahi wallaahi damaa mën a bëre. fi ma jëm mooy. mais bis bi Agogo dañoo may saas. quatre quatre combats quatre victoire laa toog. dañoo may saas ba bëre ñoom. si na mu ngor jaatu na booy dañuy daw dañuy wiiri. Franc mbër booy dañoo wiiri ba ma jël kii. mais dañoo wiiri. maak Franc ñoo waroon bëre. mais daa wiiri ma jël kii. te sama avance lekk naa ko bu yàgg si texte texte bi mooy sama trois combats mu koy tëgg nee ko maay mbërëm waaw. non ba tamit mënul ñàkk na ma nag sax na rek.